dikkati na ñi gëm dëgg-dëgg élection présidentielle dina am ci 25 février bi loxo ca kaw le mandat yéene kaay naan kon sama loxo ci suuf gaw ma ko soo moytul nag dàq élection présidentielle bi mooy ci réew mi fayal laaxu yéene kaay bi naan ñi nga xam ne ñu ngi leen dippee ay recalé ña ngay ci président Macky Sall mu daal di deltu ginnaaw ci amin gi nu tëggee élection yi ci réew mi tribune yéene kaay naan kon en tout cas parrainage bi ci boppam nee naan Sall na ko tëggee le témoin yéene kaay naan kon moo yi mënu cee ñàkk tribune yéene kaay naan kon egguñ foofu waaye candidat yi nga xam ne wali dinañ leen ak ñeneen ñi nga xam ne dañ ne leen dem leen ngeen xaar ña ngay sàkku ci sàll ngaari lam tooro bur géde mu daal di defaat parrainage fa tànk jaaroon na fa jaaraat waaye bi yoon ak fichier boo xam ne ñëpp ko xam ndax bari na ci rëkkale yoo xam ne <laughs> xel a ngay teey daal ak ñu jàll ñoo xam ne it <laughs> xel a nga cay teeyat daal yéen kaayub des média bi naan man ñeent fukk ak ñeent ci ay signataire lañu bokk benn xeex moom moo di nag ñu yëraat anam yi nga xam ne defee nañ ko ñamu àndal ña nga bind ab bataaxal président Macky Sall l'évidence yéene kaay naan kon Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany Mimi Touré day bind nan ab bataaxal Sall ngaari lam tooro Bourguédé naan kon Sall mani la processus électoral bii na dakk direct news naan kon ñeent fukk ak ñeent lañu ña nga naan Sall nag atteel te nga wax ci mbir yi balaa làmbaay di ñaaw ndax fi mu ne na mu nar a demee moo nar a ñaaw fa yallaahu l'indépendant yéene kaay naan kon Bougane ak ñamu àndal nee ñu parrainage bi ci boppam la ca am moo ñaaw moo salte wala cam les éco naan ab lettre bu soft lañ bindal Sall naan kon nag ña nga xam ne dañ leen invalidé te jaarale wuñ ko ci yoon yow président maki Sall fexeel ba loole jaar ci yoon yéen kaay bi naan man ba tax na yéen ci rëkkale ak ñenn ñoo xam ne bennoo la ñu bokk ña nga naan élection yi moom puusam mënta ñàkk Walf Quotidien naan kon en tout cas gi leen wërngal ci parrainage bi leen soobu fi mu ne bugaan gi dañu Mimi Touré ña ñu àndal daal di bàyyee seen bopp Sall ne ko atteel baa ñu xeex parrainage bi baaxul yow président Macky Sall xam nga ko jooyante lii mbaa ñu songo ak recours yi bari na l'observateur naan kon ay recours yoo xam ne mani la fëgg dënn am na ca ndax ña nga naan sàll na atte ndax sàll nag mani la man naa joyanti lii tribune yéene kaay naan kon ah lu waay def mën ko joyanti di xanaa du sàll moo fi indi parrainage segg seggaat bàyyi ña ko neex jàll ña ca des mu rëkkale leen gaaye nag naan kon président Macky Sall segg gi moo jaarul yoon ndax na utoo tame sunguf tame yuréet nga jël segg ba mu saf la ña la saf dal di jàll moo tax it bind nañ ko bataaxal moom président Macky Sall lee fa yéene kaay naan dañ ne ko parrainage bi mani la saytuwa waat gi nan ca jaaraat yow sàll sax doole gi ngay jaay yenn candidat yi di leen naj wane ko tey jii nag ci ñu jaaraat fa nu jaaroon xool ndax yeneen candidat yi nan jàll am déet waaye tam ci anam wu set wu leer fichier boo xam ne bu baax la koo xam ne nag mën nga jàll ci anam wi gën ñu bàyyi la nga jàll ndax nag pare parrainage bii daal dinañuy xam ak candidat yi nga xam ne ànd nañoo ñoom ne bari na ci manquement yoo xam ne da cee am ba mar day taali le quotidien le quotidien encore en tout cas mbir mi jeexagul xeex gaa ngi mel ni tulleeg màlle Thierno Alassane dem na kalaame Karim Meïssa Wade ne ko ñaar ñaari nationalité nga am le témoin yéen kaay naan kon Karim ma nga naan déet benn nationalité la am wan koy preuve yi xam le ni bu France am moom Karim tàbbal na ko géej fa yàllaaxu le quotidien le jee naan kon Amadou Ba nee na Jomaay Faye ak Cheikh Tidiane Dièye bu ñu bokk turbine yéen kaay naan ko déet gannaaw ba nga xam ne kay téye nan ñeent fukk ak ñeent ñoo xam ne ay candidat yu dëggal seen bopp lañu ñoo xam ne mënoon nañ dem ci élection yi nax am nañ légitimité bi yéen kaay de média bi naan man tey jii boo moytu yeneen ci candidat dinañ leen téye ndax nag ay recours yoo xam ne def nañ ko soo moytuwul Boun Abdallah Dionne du bokk soo moytuwul Aly Ngouille Ndiaye du bokk soo moytuwul Déthié Fall du bokk soo moytuwul Cheikh Tidiane Dièye du bokk soo moytuwul Bassirou Diomaye Faye du bokk soo moytuwul Aliou Mamadou Dia du bokk soo moytuwul Khalifa Ababacar Sall du bokk soo moytuwul Karim sa Wade du bokk léegi nag laaj ba moom mooy ñan ñooy bokk ci élection présidentielle yi le point actu naan kon parrainage bi rek lu ñu dal ci métit ci mim réew parrainage bi moom moo ñu ko teg parrainage bee caution bi sa bokkun ma la ndax nag mooy seggukaay boo xam ne maa tay la ña ko sa fay jàll ña ca des ñu téye leen ñañ à tout moment mën na dañ leen recours ñoom ñu téye leen yéen kaay bi naan man ay candidat yu ci mel ni Bougane Gueye Dany candidat yu ci mel ni Aïda Mbodj am ay conseillers municipaux ñu téye leen Anta Babacar Ngom ak Rose Wardini amuñu expérience politique professeur Daouda Ndiaye ñoo xam ne tey la ñu njëkk ci parrainage bi tey la ñu jàll teg ko fan li ko dajee naan kon ak coow li coow li kay Abdoulaye Sylla moom mi nga xam ni moom it gàllankoor nan ab jàllam ci parrainage bi ay laaj nag daal di juddu ca Touba kan moo ragal nag Abdoulaye Sylla ba koy téye ndax nag dugub politique bu directeur général bu bi bari na yaakaar yu mu wundoon ca Touba ñoom responsable ya nekk foofee di xool yan anam la ñuy jàppale Abdoulaye Sylla ba candidature am mën a jàll bés bi le jour mel ni ku naan man Sénégal jaxasoo na fi mu ne comme supp lu jot dëxëñ ci cin li recours yaa ngi mel ni tulleeg màlle moom Amadou Ba mi ñu ne moo yor doole gi moom ci boppam ma ngay recours l'enquête yéen a kaay naan kon yéen a ngi recours mbaa am ngeen ca yaakaar bu leen fàtte 2019 soriwul recours yi ma ni la fan la mujje woon le mandat naan kon lii xeeñ ma ni la dafa mel ni élection présidentielle am février bi critique kaay naan kon en tout cas Mary Teuw Niane nee na am par force réew mi ko dijee naan kon maître Amath Thiam ma nga naan ñay kalaame Karim Meïssa Wade ca conseil constitutionnel taxaw leen ma wax leen ñaari baat conseil constitutionnel ci boppam mënta attee coowal Karim Meïssa Wade gii deux minutes pour lire l'essentiel naan kon en tout cas benn lam du yëngu gars yi nag xam nan ko ba validé yeeg invalidé yi joxante loxo fas yéene songandoo parrainage bi nga xam ne ñamu rëkkale bari na te mën naa gàntal élection yi turbine yéene kaay naan ko déet bëgg-bëgg lenn dong la moom moo di parrainage bi ñu saytuwaat ko fichier bi ñu daal di koy ba ku ne am te accès ñu daal di taxawalaat geneen koo xam ne segg gi duñ ko teg ci yaa ma ak maa tey ku ne laa la wax ci ñoom ñii mën nga jàll à tout moment maître Ciré Clédor lii ci libération yéen kaay naan en tout cas ñun ñooñu Ousmane Sonko day déposé nañ ab dossier boo xam ne dafa complet te Ousmane Sonko kenn mënu koo teree bokk ci candidat yi libération naan maan waxtu wow moom oustaz Assane Seck daal dinañ koy téye ca kaso ba gannaaw bi nga xam ne sàkkoo te nañu beneen bàyyib nëgandiku moom oustaz Assane Seck bàyyib nëgandiku googee ñu daal di koy tàbbal géej ne ko ko kaso ngay des yéen kaay bi naan maan waxtu woowu Pape Sané mi ngi ci guddi gu bët setagul turbine yéen kaay naan maan waxtu woowu feem la ministère de l'économie du plan ak bu coopération fas ci réew mi moom Doudou Ka daal di xamle ni programme d'accélération compétitive emploi lañ bëgg a saxal ci réew mi lu toll ci junni ci milliards ñu daal koy mobiliser ci juróomi at ñu jëm lu toll ci ñetti millions ci xëy ñu daal koy amal ci réew mi daal di mi diggante junni entreprise waaye tam ñetti téeméer champion nationaux ñu daal di leen di ciblé fii ak 2035 dëkk dëkkaat yi ci réew mi war cee bokk waaye PME PMI yi war cee bokk ñu war a jaar fa suqali ña nga xam ni ay secteur privé lañu ngir Sénégal mën a gis boppam Le Quotidien Le Quotidien naan kon en tout cas kaw gi moom président Macky Sall ma nga naan leen sama yitte ngeen laas yéene kaay nan kon ni ki démb ndajee ba ministère bu développement communautaire ak équité woote woon moom Sall daal la nga fa doon xalamal Thérèse Faye Diouf Le Soleil yéene kaay naan kon programme d'équité sociale ak territoriales yi def ay réalisation yu am solo ci réew mi askan wa nga xam ne boole nañ leen ci programme boobe seen dundin seen nekkin ci wàllu njaboot gi daal di ñoŋ waaye tam nekkin ba ca communauté ba daal di ñoŋ moom président Macky Sall naan yoon wi gudd na defin wii des na waaye xelam dal na ci li nga xam ne jot nañ ko réaliser te ministère bi daal di koy def turbine yéen kaay naan kon ak lu mën am bu leen fàtte ni teer bi it mi ngi faati bakkan bi mooy ñetti bakkan boo xam ne faat na ko ni ki démb yéen kaay dee média bi kon bu leen fàtte ni it lu mu tar tar ñeent fukk ak ñeent daal yëraat parrainage bi yéen kaayub des média bi naan maan ñii ñoo bëgg ñu yëraat parrainage bi ci réew mi Mohamed Ben Diop Mamadou Ndiaye Cheikh Abdou Mbacké Cheikh Alassane Sène Alioune Sarr Aminata Touré Aminata Assom Diatta Ibrahima Gueye Aly Ngouille Ndiaye Babacar Gueye Bougane Gueye Dany Birima Mangara Ibrahima Sissoko Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko Amadou Ly Kane Cheikh Abiboulaye Bamba Dièye El Hadji Mamadou Diawo Mamadou Fadel Koné Alpha Thiam Serigne Mboup Abdou Khadre Sall Déthié Fall Babacar Diop Samba Ndiaye Aïssatou Mbodj Mansour Ndiaye Cheikh Dieng Amsatou Sow Sidibé Mamadou Diop Decroix Malick Gakou Thierno Alassane Sall Jean Baptiste Diouf Mbacké Sarr Serigne Gueye Diop Habib Sy Mary Teuw Niane ak Moustapha laaj ba moo di ñii boo ci présidentielle bi leen moo cay des ak lu mën mbokk yi ñuy ñaan jàmm jàmm SeneInfo